Euh, salaamaaleykum mbokki internet yu Géejawaay info tey ñu ngi am mbégte ak kontante bu mag ñu dajeek euh, le coach Mame Less euh, maam ku ñëpp xam avant combat bi dañoo demoon ci moom mu waxoon na bu mbàccam gerte mi wad waddee gerte gi dem fële maam yëf yi demee nii kemb yi wadd ci suuf danañ xam kuy diriger combat bi combat bi nag jeex na tey Balla am na ndam ñu ngi koy félicité Modou Lo ñu ngi koy encouragé xam nañ ne tey Sénégal moo am ndam nañ xam ne lépp ci sport la woon yaa ngi dégg vraiment yàlla na yàlla dimbala leen ki am ndam yàlla na ko jikk ki amut ki tamit yàlla dimbala ko ëllëg ci beneen combat am mu am beneen ndam kon nag maam les jaare ko man du ma posé benn question ban euh, nan nga may décortiquer combat bi ndax yow da ma cee waxoon lu bëree bëri loolu wax ci loolu. Euh, salaamaaleykum waa Guédiawaye info euh, salaamaaleykum suñu waa kër salaamaaleykum sumay famille sumay frère salaamaaleykum waa marché Sam sumay frère yi nek à l'étranger lay job samay cousin khadam cheikh soumarak duma bayyi diko tuddu asmar ablay job feray jaaji marché sam jóge fi dem parcelle inte 1 ba 26 nga xam man sama way fa la nek ah lamay dacc daj ci coono di ko ci ay xalé fofu la xam fofu la min waye question buñ la koy laajte ci ay analyse humaine ni muy ay analyse technique naka da nga ci wax li nga xam comme ni ma leen ko waxe chaque jour rek waaw léegi nag nañ jublu ci question réponse yi nga mën maa laaj di gërëm ñëpp daal même Pam Mbaye da ci di gërëm père père père père père Balla Gaye numéro un di gërëm ñëpp di nuyu Modou Lo aussi di nuyu Balla Gaye. Euh, euh, hmm. euh, Mame Less am lu am solo ci combat bi dama hmm. doon wax ne maanaam xam nga nit boo xamee làmp di décortiquer làmp da ngay gis mën nga wax loo xam ne comme li ma la wax rek nit ki buy wax day wax lu mu xam nee naa la cinq minutes di njëkk yi wala deux minutes di njëkk yi wala une di njëkk bu ñu nee runkum dajee ba kurpeñ yi commencé dàqee maanaam kurpeñ mooy mbàccum gerte mi bu ñu génnee bu ñu kurpeñ yi dàqee ba ñu génnaat di nga xam kiy diriger combat bi waaw. léegi ñoom ba mhm. sa gis-gis xam ne bañ la doon tey mhm. na ko fa am doon loolu euh, ëppee na ko ay cër. Balla gën na ko ëppee taxawaay. gën na ko ëppee yaatuwaay tuuti. ëppee na ko doole tuuti. ndax Modou gudd rëyut mais champion la. te il n'a pas démérité ndax ku xam Modou loo xam ne champion bu mag la. ku xam Balla gay xam ne champion bu mag la. di ñaanal Balla Gaye di ko féliciter ci victoire bi mu jógee yàlla na ko ci yàlla defal jàmm yàlla na ko ci yàlla defal taxawaay yàlla na am beneen combat yàlla defal ko ci ndam di wax Modou Lo aussi ne keroog aussi waa parcelle unité 1 ba unité 26 ñëpp a ci jàpp waaye comme li ma lay wax rek moom heure bu ñëwee nit ñëpp dañ naan Modou Lo cuune na waaye combat bi ni mu demee ak ku xam Modou ak jomam ku xam moodu ak taxawaayam ku xam moodu ak na muy duggee làmb keroog la xajam ca làmb bi yëpp ñu ko expliquer internet waaye ñun suñu biir waa parcelle danañ waxtaan ba xam li xew waaw. waaw non xam nga xam nga xam nga non xam nga maanaam làmb ji li ci xew dafa bari déjà ci duggukaay Moodu bi xajam na gis nga policier booy yi ba mbëri loolu baaxul ci cumbukaay tuusu Moodu xajam na yaa ngi dégg biir combat bi Moodu ma ñu xamoon ak Moodu mi dafa am différence bu bari yaa ngi dégg waaye combat ni mel. parce que Modou waa parcelle dañ cee jàpp boo xoolee Balla Gaye liggéey na loo xam ne ñaan ñaanal boppam ci loo xam ne bu sañoon combat bi mënu cee ñàkk bañ am dem ndax daj na coono yu metti li ma la waxoon dem na INSEPS ñu koy fabriqué foofu parce que INSEPS boo duggee tubaab bi ci machine lañ lay dugal xam li baax sa yaram ak li baaxul ñu dindi ko moo tax ma ne la Balla gay lem def xamu ko dugg na foo xam ne xamu ko ba mu fay dugg tamit dafa yaakaar ne comme nit ñi liggéey fi entraînement géej foofu bokkul foofu beneen monde ngay nekk. foofu tout est réglementé tout tout est à l'heure yaa ngi dégg Modou nag moom jël na fi ay xale nee naa la yóbbu Espagne préparé leen xale yi mu yóbbu seen bopp nee naa la yokk na ci ñoom maturité goo xam ne yokk na ci ñoom kàttan goo xam ne danga naan ñi Modou yóbbu sax ñi Modou yóbbu ñoo ëpp kàttan kattan Modou. danga danga naan Modou liggéey te Modou liggéey na liggéey boo xam ne ba oos ba oo koŋ ba boo gisee Modou sax da nga ko yërëm mais komba moo mel noonu nee naa la combat il suffit que nga gën a prêt il suffit que nga gën a lucide nga gën a teey am mentalité boo xam ne yow lii ñëw ci làmb ji yaa ngi koy calculer looloo taxoon ma ne la bu mbàccum gerte mu wuree kay dugg ca ndëgg sërëx ga laa yërëm te moo doo ca dugg. mais léegi bu combat bi dafa am wax lu am solo dañ ne Modou. ko mm. mm. woon mm-hmm. parce que dafa mesuré ne. dafa mm-hmm. sóoraale amatul force boobu. mu amatul mm-hmm. force. te loolu ban ban analyse la xam nga loolu loo loolu loolu waxin la rek. maanaam loolu nit ñi koy wax dañoo xamul làmb xamul réalité làmb. xamul nit ki ak mën a bëreem maanaam ku xam Balla Gaye xam ne daa mën a bëri te Modou xam na loolu Balla moo la gën a xamante ne Modou tam mën naa bëri Balla moo la gën a xam ne la Modou la ndax li Balla daj coono ci combat bi musu koo daj ci làmb ba mu dalee bëri ba léegi Bécaye déggoo li ma la de dama ne la li Balla daj ci combat bii ba mu dalee bëri ba léegi musu koo daj ci làmb la mu fay ca France ak na mu nekkee woon ca France ak ni combat bi ñëwee ak mystique bi mu jël ak Balla temps bi mu jël avant muy bëre moo lay wan ne combat bi jaral na ko lu baree baree baree Bécaye. dafa am tamit loo xam ne dafa jaaxal nit mhm. lu gars yi naan mu dafa mën a xeex. Mhm. te keroog Balla euh, euh, ko da ko fekk ci lu na. Mhm. Euh, du ma ko pare doo xam nga Balla buy ñëw di attaqué day def erreur. ponkal du jóg du tëb rek jóg maanaam Modou nee naa la jour boobu maanaam boo waree daan dangay nekk cuune rek. manam tay Modou bu amone lecture ci combat bi bi Balla di meb di job bu juwaloon ak mom combat bi dina gëna neex ndax Balla neena la dina def erreur bo xam chaque fois waxna naa la ko barki dem bi ma invité bu job du tago te ponkal du tëb rek job ponkal du tëb job ponkal day ko ba japp te Balla loxo tam bi da ci am fort Balla loxo tam bi lu mu ba japp du rëcc te dafa am doole am doole yah am doole bir yaay de kon donc deux ñaari doole la boole dafa am doole yax ci biir am doole donc lu mu jàpp du ba moo tax fi mu combat bi bi muy bi muy diriger combat bi bi mu dóoree Modou mu tërëf Modou dafa latéral au lieu de muy reculer di ak Balla parce que centre de gravité Modou bi a centre de gravité te encore bi bi bi ko Balla ci bi ñaari ngemb boobu boo xoolee centre de gravité Modou ñaari tànkam yépp mi mu dajale te yow doo fekk ponkal mu la sut gën laa yaatu ëpp la dayoo jàpp sa ñaari ngemb nga yàgg ci suuf yàggin woo xam ne man dama damay xam nga maanaam li ma lay wax ci Modou rek mooy bu defet ñëwee nit ñëpp dañ naan cuune nga te Modou champion la ku mën a bëre la yàlla mooy def ne heure booy daanu Balla Gaye bi ko Bombardier daan dañ na cuune la ñi naan daa feebar nangam nangam mais defet moo ñëw bu defet ñëwee nañ ko nangu xam ne defet la parce que il faut il faut ñu nekk ay sportif bu defet ñëwee ñu conserver ko ñu conserver ko consommer ko xam ne defet la parce que defet buy ñëw aussi yow da ngay da ngay mel ne ku nul parce que nee naa la ci dugg ba boo yi dañuy mel ne ku leen xabtal yaa ngi dëgg policier gendarme yeeg cumukaay nga yor ay cumukaay di xeex wala nga yor ay cumukaay di saaga wala nga yor ay cumukaay mm, xoola boo xoolee ñaari mbër yi bokkuñu parce que Balla aisément la duggee ci biir stade bi wàcc na ci stade bi comme ni moo Modou wàccee mais Balla da ngay xool par rapport ak Modou Moosu borom dafa xajam parce que ñi ànd ak Modou teeyuñu boo yoree cumbukaay da ngay teey mais Balla ñëw na ba ci stade bi taxaw ci kaw tribune sangu lu muy sangu sans personne déranger ko parce que encadrement beeg booy kenn ku ne xam ne fi nga war a yem encadré sa mbër la nga wax mais ñi ànd ak Modou kenn ku ne gis li ma nga bëgg. voilà comme foofu nga danaa ci wax euh, mhm. kon su la déggee. Mhm. Euh, encadrement daf ci am solo euh, si ñaari encadrement ci côté Balla ak ci côté Modou. non ñaari encadrement encadrement Balla actuellement ci combat bi moo gën a baax ndax Balla boo xoolee ni ko Aziz Ndiaye encadré Baye Ndiaye ko yaa ngi dégg bu ñuy wax rek nañu wax ci làmb man ci làmb laay wax ak li ma xam nee naa ba tey du ma wax lu ma xamut ni ñu ko encadré encadrement moo gën a baax encadré Modou Lo boo xoolee Modou Lo que ay booy yu tolloog génération. su may rakki ndaw yi la jël def leen ci cumbukaayam te aussi làmb dafa mérito loo xam ne bul tooñ am na loo xam ne cumbukaay nangu ko am na loo xam ne boo yoree gàllaaj dañ naan la bul tooñ am na yoo gàllaaj yoo xam ne boo koy dañ naan bu leen histoire ah am na gàllaaj yoo xam ne dañ naan ko moytu leen lii moytu leen ay tegtal la mais làmb ji la ca xew lépp kenn mënu la ko wax Bécaye parce que làmb ji dafa mel na noo xam ne nee naa la moo di jour boobu ak ni ko waa parcelle yenoo ak ni ko waa parcelle jàppale ba ñëwee dañuy mel ne il est nul. tey yéen euh, su ma la déggee tey yéen tey ban décision ngeen war a jëlaat ak ban lecture ngeen non xam nga ku xam Modou comme li ma la wax rek nee naa la Modou il est toujours prêt parce que Modou ku ko xam xam na ne nit ki li muy liggéey da ciy sóoraale xale yi ci am ndax nee naa xale yi ci gannaam ñëpp a bëgg a bëreeg moom ñoom ñëpp a bëgg a bëreeg moom. parce que motax chaque jour mom il est toujours prêt il est toujours prêt parce que xamna likoy yott xamna likoy xaar waaw dégg na nak ñaan combat moog diw ak diw taxaw na waaye combat bala muy taxaw xaliss duggu lolu moy finaliser combat avance dal bu duggee combat ba leer waaw waye dal ñin ñep ñoo ci yam ñi ngi am ay rumeur ci am avance ak diw amna avance ak diw waye dal lima lay xamal moy mais d'après information yu am tey Birame avance moom joxe woon nañu ko bu yàgg mais dañoo dese woon leer ba xam koppar yi dugg na waaye daal liy war mooy dana lëluwaat defarwaat changé waat estafam tuuti parce que il faut du mën a ñàkk il faut nga dindi lii defar lii te magam ji aussi Ibou Diouf na jël choses yi en main parce que doo jiital ay xale xale yi ndaw di dem ànd ak Modou. lu ñu def génne ko ci internet bi wala ñu def wax waqun wala buñ yegg see moodu buñ tiimee moodu di sinap loolooy tax ma ne la maturité foofu la manqué waaw maturité dafa fa manqué te aussi y a une chose boo xam ne remarqué naa ko parce que parcelle parcelle Assainies rëy na rëy boo xam ne tey combat bi ñu ci bari mënoon nañ cee jàpp jàppale ci moodu parce que ñu ci bari aussi ba nga xaar moodu di leen woo parce que euh, Rock Énergie am na fa ay champion am na Modou Yékini nga fa parcelle Moussa Juma nga fa parcelle Garga Mbossé nga fa te ñoo ñëpp maanaam dese naa leen gis ci euh, jàppale Modou Lo la ko waral nag xëy na muy malentente bu am seen diggante yaa ngi dégg waaye loolu lépp daal bu ñu toogee ba waxtaan toog ba defarwaat xool nu ñuy doxee xool nu ñuy tëddee yaakaar naa dana amuk soppeeku waaw. bu la déggee maam yéen jot na ngeen def assise au niveau du mën a ñàkk du mën a ñàkk loolu moom danañ ci waxtaan ñun kàngam yi. waaw maanaam dañu xool nu ñu koy waxtaanee xool nu ci nu ci pambay di jëlee ay mesures te aussi pambay ku sonn ci rock la pambay bi xale yi nekkee tout tànk genre ñoom Modou looy yi nekk tout tànk ba ni ñu nekkee mag ñoo pambay seen entraîné lu ñuy ànd donc nag nit ki bu la jiitalee ba nga toll fii ba commencé dégg daal yi lépp lu ñuy def tey ci àdduna pambay da ca war a jiitu lépp lu ñu war a def rek pambay da ca war a jiitu ndax gis nga nit bu la dee toppatoo ba nga nekkee xale ngay ànd ak moom di raam kenn ñëwul la ko metti mu koy muñ coono ba mu lay soñoon chaque fois ngay jiital nit koo xam ne am na ci yow njariñ mais gis nga nit ki bu nit demee ba dégg daal te boo xoolee mbër yu bari ñoon lañ mel nit ki bu demee ba dégg daal rek nga am yeneen gan yu bees am yeneen nit ñu bees am yeneen ñu bees ñoo xam ne dañuy ñëw ba yow doo leen mën a canaliser boo xoolee open press su Modou Lo xajam gi mu xajam yaa ngi dégg te mënoon naa gën a commodo mënoon naa gën a normal parce que boo xoolee ba su Balla Gaye dafa rafet ñi ñëw bëgg a seetaan Balla gi gis nañ Balla Gaye mais Modou Lo ñiy ànd ak moom ñëpp gis leen ma lañ bëgg man maa daw ci kanam Modou Lo wala maay ànd ak Modou Lo wala maa nekk ci wet gi looloo tax Modou Lo dara ah peut-être mu ñëw ñëpp moom mootu xam naa leer na ni ma xamee Modou mun leen wax dara mais loolu aussi c'est pas bon nit ki booy ànd ak moom da ko war a dimbali fexe ba kenn bañ koo jege mu am visibilité nit ñi mën koo gis parce que ña indi woon Modou ci open press bu dee 1000 pour cent 900 yi gis ñu dafa mel noo xam ne mar day taal yi jëm na ci lu ne ñu nekk ci condition yu baax jéem a taxaw condition yu baax jéem a mu jéem leen organiser mais comme ni ma la rek booy bu ne da ba gis leen ma maa ñëwoon ci open press Modou gis naa Modou maa nekkoon ci kanama wala gis nañu ci internet bi yaa nekkoon ci kanam. Euh, euh, léegi euh, nan nga moom champion la Balla moom dëgg dëgg neex yàlla champion la peut-être doon na wax naan ci jamono yi njëkk naan képp ku ko daan yaa ngi dëgg dana dindi gàkk ga boobu waaw def na ko contre Issa Pouye dindi na ko donc comme yàlla baax na mbër moom li ma la wax loo toog loo gën a toog rek âge bi gën a dem yaa ngi dégg am na ay kàngam yu fi nekk ci làmb yoo xam ne danañu war dana mën naa bëre ñoom mm, comme lu mel ne bombardier comme lu mel ne Tapha Tine dindi gàkk-gàkk yooyu Modou Lo ëmb seen pare euh, ku ci pare ak ku ci daan combat boobu day daal taxaw xaalis ba gën a yokk xam nga moom mu bañ a toog naan damay xaar parce que bu la say supporter di la xaarloo naan la xaaral Yékini pour supporter la ñuy wax mooy couronne ba la ñuy xool te sportif du doxee noonu yaa ngi dégg am na entourage am na am am na ñu baax ñoo xam ne comme Baye Ndiaye Aziz Ndiaye ñu ngi koy dimbali di ko jàppale waaw di ñaan aussi loolu yàlla na yokk ñu bañ koo dimbale pour quelque temps après yëf yi doxul ñu bàyyi ko comme nañ defoon bu njëkk lool baaxul nit ki boo ko jàpp da nga koy jàppale yàlla nit ki boo koy dimbali da dimbali ngir yàlla Balla champion la yaa ngi dégg am na doole xam na kàngam la ci bëri mën na bëri loolu moo xam naa ko ci Balla. Mm. léegi waaw di gërëm comme d'habitude rek xam nga euh, lii waxtaan bu ñu waxtaan loolu bu njëkk la. nee naa la combat bi ni muy demee mooy round d'observation dina ci am danañ am tuuti xeex waaye lépp ci bëri lay mujjee waaye ndëgg sërëx ga ko cay dugg moo ma jaaxal te Modou Lo ci dugg te di ko encouragé moom Modou bu baax di féliciter Balla ndax ku am jom la moom it Balla daj na ci combat bi coono yi metti ñàkk na ci xaalis bu bari waaw loolu moom ñëpp xam nañ ko Modou Lo tamit def na ci xaalis moom it ci boppam parce que yóbbu na ay nit di jële leen senegal ñu mës a génn mu yóbbu leen Espagne ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom contact fa ba oos ba boo gisee Modou da nga ko yërëm fi mu toll ko gis Modou da yaakaar liggéeyul te wóor na yàlla ñam yóbboon sax Modou leen gën a liggéey waaye doo boo nekkee nit yax da ngay nekk nit ku gaaw am volume yaa ngi dégg boo tuutee sa yax du gaaw màgg dañu yaakaar ne kii liggéeyul mais doole ji ci Modou ak ni ma xamee moodu nga xam ne du noppalu mukk à dëgg dëgg ko jara félicité la waa parcelle aussi nañ xam ne nii la làmb da ngay dugg tey boo làmbee daj léeg nga làmb doo daj tey nag moodu moo aye di wax waa parcelle nañ bañ a découragé jàppale seen mbër encouragé ko tey ñi ma doon gis ñuy génn seen internet bi di wax moodu di wax nangam bi moo daanoo gisatoo ci kenn donc nag moom ci moom war naa toog xalaat xool boppam yaa ngi dégg xoolaat entourage xool ni muy demee yaa ngi dégg moytu yu bari parce que lu lu lu xam ñu bëgg koo génn ci internet yi wala sa sa ñu bëgg koo génn ci ci ci ci ci rajo yi wala télé yi loolu aussi defarul mbër kese ce soit muy Balla Gaye que ce soit muy Modou Lo maa ngi gërëm ñëpp di leen gërëm yéen waa Guédiawaye info di gërëm elas bakaay ci andum ak sama copain yaa ngi dégg di ñaanal suma waa famille sumay frère comme d'habitude ñoom lay jaan ñi nekk ci kër gi dama jóob yaa ngi dégg suma yaay mère mati grand goro grand jibi xam nga sumay frère comme d'habitude yi nekk france seexu suma rak xam nga kooku suma rak suma xarit la yaa ngi dégg di leen gërëm ñoom ñëpp di gërëm aussi Moussa Dioum xam nga mooy suñu tëdd fii lu écrit di leen sant daal bu baax di leen gërëm di leen ñaanal aussi seen bi yàlla na dem ba nekk ay télé yu mag yu ñëpp yi dégg incha rabbi jërëjëf